jàkkaarloo bi nga xam ni Moustapha Guirassy ministre de l'éducation jàkkaarloo woon na ko ak Chérif Diop ci waxtaan wu gàtt lay doon itam woo xam ni wii xëy na lu mu yàgg-yàgg du passé dix minutes yàgg-yàgg nga xam ni day jik ñëw rek juste def le point le point maanaam tënk li nga xam ni moo jëm ci wàllu ouverture des classes ñu woo ko mu war ñëw leeralal askan wi moom ministre bi fan lañu toll ci waajtaayu ouverture des classes à une semaine de l'ouverture des classes bi ñu agsee mu daldi koy laaj ab laaj bu jëm ci xew-xew yi fi xewoon waa weesu mu ne ko demal nga laaj ko juge bi foofu la waxtaan wa tàmbalee yàqu ndax dafa bëggoon moom focalise dafa bëggoon a moom ministre bi jubale waxtaanam ci li nga xam ni moo ëpp solo ci waxtu wii ci ministre de l'éducation mooy wax ci ouverture des classes ak yi nga xam ni ñoo ci aju yépp te loolu moo moo doon objectifu seen daje ñoom ñaar du caageenu membre gouvernement la rek bu dikkee nga laaj ko n'importe quelle question gouvernement bi am nañu porte parole te yaakaar naa ne <laughs> làmmiñam nekkul ci biir poosam yooyu nga koy laaj it am nañu ko ko gën a maîtriser ci gouvernement bi ministre de l'éducation lu jëm ci wàllu justice ak nangam boo ko bëggee xam da ngay woo ministre de la justice wala ministre de l'intérieur ñoo xaw a jege nga laaj leen ci loolu ñu tontu la ci loolu waaye ñi koy tàccu moom Moustapha Guirassy euh, moom Chérif Diop ñoog moom a yem malheureusement tous ces gos la sorti de n'importe où jekki-jekki rek pël rëyu làmmiñ di jaayuk français di di di di arabal yooyu yëpp du niveau du niveau ndax ku dégg wax yi muy wax nee ñu eh, Moustapha Guirassy dafa arrogant déedéet man gisuma arrogance gisuma arrogance dégg naa Chérif mu naan moom plateau <laughs> quel plateau da am moom plateau yow dara foofu buñ la ne woon jógal nga dem boo moytul chemise bi nga sol sax danga koy summi wacc ko fa nga jàkkaarloo koo xam ni kii ala kulli xaalin moo la mag foofu nga naan calmez-vous est-ce que loolu ci texte ci termes yi nga war a utiliser la naan je vous respecte nangam nangam je respecte les loolu du lu ñuy wax lu ñuy jëf la da nga jàkkaarloog nit lama doon wax keroog ca xale boobee jàkkaarloo nag euh, waaja Mbàkke loolu laay wax tey kooka nañu ko bëggoon a def moom ku jigéen ka loola laa àndul ànduma ci boobu façon moo ñëw di tuumaal nit di xas nit di ko gëdd di ko doyadal te kooku noonu la daan doxale bokkul ak Moustapha Guirassy c'est diamétralement opposé c'est diamétralement opposé bu ñëwee ba ñu def eh, eh, eh, daje xam na déjà li ko indi ci plateau bi moom Moustapha Guirassy xam na question yi ñu ko war a posé parce que loolu mooy mbir mi bu dee nag débat la boo xam ne bi dafa yaatu une heure de temps deux heures moom moo nangu ne dana tontu ci laaj yi nga laaj ko ki mais ñun li ñuy itteel mooy ouverture des classes bi mu wax ca lam ca lañ ca soxlaa xam dégg naa ñu ni Youssou Ndour woote na di félicité waaw waaw la fañ kay borom mi mbaam lay faral gémmiñ gu gu tojit du wax jàmm Youssou Ndour moom di wax jàmm ci réew mi fan yi gëw ma ne dana yomb parce que li mu nekkoon nag daa neex te yomb lool kon ña la ko xañ ragal naa ne doo gën a mëneeg ñoom te Youssou Ndour yàlla mëne na ko gan xëy na jàng na góorgóorlu na ba waaye limité très limité très limité très li ma daan wax ñëpp moom laa koy wax jaadu woon na sax mu am ku koy communiquer wala boog ba lay communiquer kooka xamal ko waaye génn di félicité sa agent parce que loolu rek déjà c'est très maladroit ça veut dire que kon am na luy xew ci suuf lees waxut noonu nga ko daan waxee déontologie nag ni ko tubaab bi waxee la déontologie vise à réguler les situations couramment rencontrées par un corps de personnes exerçant un métier identifié mooy loolu dal Chérif ci dig digal yooyu soo ci tollee nga xam exactement nan laa war a mën a def ba lii bañ di émission bi bañ a yàqu ci yow la dépendre yow yow la dépendre yow yaa war a gën a góor góor lu pour loolu bañ a am li feek jalgatiw ñu sa xàq nag bu doon nag kii dafa ñëw di la jaay reewande wala mu lay jaay nguur wala mu lay jaay sañ-sañ su boobaa da ngay taxaw xamal ko ne ko bokkul ci émission bi yow itam waaye façon bi nga doxale du boobu façon du boobu façon c'est pas la bon façon c'est pas la bon façon li wérte wóor mooy émission bi daal loolu taxu ko woon a jog laaj nga ko ay laaj ko ay question ci li nga xam ni moom mooy ay prérogative am mooy li nga xam ni moom la ko nguur dénk ci loolu nga koy laaj nguur soo woowee benn ministre ndawal réew ca lamu la ko concerné nga ko war a laaj bu dee nag da ngeen a ñëw ci débat bu yaatu nag su boobaa d'accord waaye yow mii Chérif Diop yaa nekkul ci yoon ku waxul liit da ngay wax lu la neex rek bu la sa patron woowee <laughs> nan la mes félicitations na saf na nangam nangam c'est un ñaar comme toi c'est un ñaar comme toi il ne peut dire que ça gémmiñ gi day naaj ci tamit guddi yaakaar naa suñu daaneel mi ngi jëm ci sëñ na Mbacké ak euh, sëriñ sëñ na Abdoul Wadoud ak sëriñ euh, Mbacké Abdourahman di ñaari kàngam ci wàllu xam-xam di ñaari kàngam di ñaari nit ñu yiw nit ñu yaru nit ñu dal nit ñu teey li may wax yéen ñi jàkkaarloo ak man dem leen ngeen tàppe seen ñaari tuur yooyu ci YouTube ngeen déglu ñoom lañu ñu ci askan wi jàng jàngale yeete wax dëgg ñooñu su fekkoon ne dañuy wax ne yoonu murit dafa am ñu koy liggéeyal ñoom ak ñu mel na ñoom bu ñu xaaj bi xaaj bi sañ ngaa wax ne ñoo koy liggéey ci yoonu murit fàttewuma Cheikh Ahmadou Rafahi atallallahu baqaa fàttewuma sëñ Abdourahman Mbàkke mu sëñ Abdul Quddus rahmatullah alayhi ñooñu yoonu murit bu amee lu koy setal su dee ñoom ñooy bale ñoom ñoo ko yor ci seen loxo di ko di bale ñaar ñii ma mu njëkk a wax sëñ Abdourah mbakke Mbàkke Abdourahman ak sëñ naa Abdul Wadud ay nit nekk ci internet di leen saaga di leen yàq lu mel na xeme ndax lan dafa wax lu leen neexul dafa wax lu leen neexul dafa wax lu safaanoo ak seeni njaaxum su fekkoon ne yoon wi organisation bi sax mat na dëgg-dëgg damay jàpp ne waxtu wi fekk na ñu yebal ndaw ñu freiné ñooñu di leen saaga kon kàddu waroon na jaar ci waxtu wi ci gémmiñu porte parole mu génn wax ci ñii di saaga ñoo ñu nga xam ni lu jiw ak lu rafet rek la ñu nekk ci lislaam bii di jàngale di yeete foo leen fekk ña nga ci fiq ba fatwa di wax ak nit ñi di leen gindi ñooñu di leen saaga ku ne xam na ne nit bu dara desul lu dul saaga te muy saaga ci turub dara loola muy loola mu bokk di ca saaga moom bokku ca loola mu bokk di ca saaga moom bokk ca moo ca génnee boppam par son comportement am na comportement yoo xam ni mbaam yi di sëf ci mbedd mi sax duñu ko def nit day am xorma nit day xaj lu mu matt matt wër faa bàyyi ceen nga ca baatam ñooñu bu ñu waxee lu la neexul sax xanaa nga indi argument yow jéem a défendre yow li tax ngay wax waaye déedéet saaga nga leen koy def di commenter di wax lu bon waaye loolu lu tey de jëkkul ci ñoom ñoom daal ku wax lu leen neex rek day sax ñoo yor seen gom ñoo lay génnee ci yoonu murit ñoo lay dugal ci yoonu murit yow doo taalibe yow da ngaa bañ sëñ Tuubaa yow da ngaa contre yoon wi kii de day nëbbatu waaye ku wax feeñ yooyu lañ lay tegal ndokk ba nga xamee ne ñooñu ñoom gëw ma ne seen yooyu dana leen ébranler ñoo mën a yem de te man moom xam naa ne wuute naa ak ñoom parce que man moom ki si frot si pic ki si frotte si pic xëy na ñoom duñu tontu dañu tontu parce que dañu noonu lañu bindoo seen nature lañu ñu ndokk ba ngeen nee ñoom duñu ay murit ndax bu génnee ci seen gémmiñ yi ñoom seen xel war a gën a dal sëñ Cheikhouna Abdoul Wadoud bu ngeen nee du murit ndokk ndokk ngeen génnee ko ci seen gémmiñ yi ndax ñoom moom moom mu gën a xam fa mu ne sëñ Mbàkke Abdourahmane bu ngeen nee du murit ndokk ma mu génnee ci seen gémmiñ yi yéen bañ a génn ci yeneen gémmiñ lii xew da jar naa wax sama kàddu gi mën na cee bañ am njëriñ ñoom kay laay massawu parce que nag kàddu gu ñaaw moom amul gor su ko mën a supporter soo dee gor soo dee gor nit it amul daraja ju àgg ci ñu lay wax lu bon te mettiw la xanaa nga bañ ko manifester yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan yëg kàddu gu ñaaw ci xolam waxuma laa keneen kon ñu leen koy massawu ñoom ak seeni ñoñ ak ñi leen jege ak nit ñu baax ña nekk ci yoon wa te lu baax ñor leen ñi ci des nag muutu bi xaysikum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu